maa ngi dégg nag fan yi balaa loolu sax sëñ sa mbir yow dafa cohérent wut li tax cohérent wut mooy nan la ñuy jàppe koo xam ne dañ ne yow yaa doon woote manifestation yi te yow maanaam demande bañ def sa tournée ci amul benn vidéo boo def di woote man mii maa defoon vidéo di woote na ñëw leen bawal ñu xeex ak Macky ñu bàyyi ma fi jàpp la bañ la jàppee taxaw ci yoonu garage Dakar yi gone yi demoon football yi ñuy jànge woon ñu jëli cours de soir ñëpp ñu jàpp leen defeere ne sëñ Assane Mbacké yow yaay coupable bi yaw yaa leen tojloo yow laan sànnloo mais yow mi coupable bi nan lañ lay bàyyee ñu defut dara ñu bàyyi ñu continuer téye leen wala yow yaa am tur wala yow yaa am ay mbokk Abdou Sylla mii nga xam ne 28 la nekkoon sama buntu kër di fa liggéey di jaay ay portable Abdou Sylla mës am ñetti dépense yu sësaloo bu amee ñaar benn ba nële lay tege ji day toog ñetti fan door koo am yor jabaram yor doomam di góor góorgóorlu sàccut ñu war koo dimbali teg ko ci ay conditions jàpp ko teg ko ci kaso bi presque am na fa ñaari at ci manifestation yoo xam ne Touba jóge woon dem fa defut waxut ñu jàpp ko ba mu neex leen ñu ñu bàyyi ko relaxé ko pure simple mu ñëw sama kër ñu woowaat ko pour mu jël si portable am mu demaat ñu téye ko boobaak léegi mën na ñaari at presque xoolal ko ku ñuy wax Bada Ndiaye koo xam ne yow àndi handicapé la boo ko gisoon di dox fii bu doon jóge ci bunt bay dox di ñëw balaa yegg si dina fi am ñaari fan ci yoon wi koo xam ne dox bu baax sax mënu ko ñu jàpp ko ci ay erreur yoo xam ne kenn xamul koo xam ne dañ koo war a faji jàppale ko dimbali ko jàpp ko def ko ci kaso ba jamono ji loolu fu ko teg Macky Sall nañ ko wax dëgg mu am yërmande mais Sénégal li tax man bëggatuma wax Sénégal woykat bi doon wax naan dëgg man fen waaye fii ñu nekk fena fi man dëgg loolu mooy dëgg rey nañ fi nit ngir dëgg dàq na nit mu génn ndax dëgg jël nañ nit def ci kaso bi ndax dëgg fenkat yëpp a ngi am jàmm yor kaat-kaat yu baax di di di ñam seen wàll ci kii yor seen i portable lu wër lu waaye wax ñu dugg ci ñoom lañ favoriser bàyyi liggéeykat yi bàyyi ñi bëgg dëgg mais réew moomu fu mu am mais lu mel ni président bu mel ni Macky sàll rek lañ mérito xam nga yàlla suñu borom askan wu muy askan wu muy fal njiit day jël tuuti ci seen jikko bi ñu amee Macky sàll nag ma xool télé yi nit ñi nekk fii wax waxu làmb wax waxu nangam nangam ak Afrique yëpp jóg di dox xoolal sous-région bi xoolal Sahel bi ñëpp ximuli ko di yeewu jël tubaab yi takk leen ba dëgër sànni teg leen ci seen euh, teg leen ci seen tegukaay sëñ bi man Sénégal rek ak ak xëy na Côte d'Ivoire laa fi gis ci dëkk yoo xam ne ñu ngi nelaw ba léegi te ñun ñoo gën a ñoo pour ñun booy pour man booy xool ñun ñoo gën a ñoo ñoo gën a intelligent ñooñu ko mais suñu intelligent dafa mel ni sangu ak soliére ci la yem quoi mais vingt et unième siècle ku mel ni Macky Sall ak dynamique bi tubaab yi jiital ko mu muy dal ci kaw nit ñi ñu torox àllub neen ñii di dem ci gaal gi ñii di fay cinq millions pour dem Amérique maa ngi leen di conseiller nañ ko yokk ku sa yaay am ay lam na ko jaay jox sa doom mu dem dëkk bi du baax barki sañ Tuubaa du baax dëkk bu ñu ginnaawal dëgg jël fen teg ci kaw dañuy alku man de bu ma fi barke sëñ Tuubaa Mbàkke sama njaboot gu sew gi ya tax ak maa ngi mos dara bu wóor état baa ngi yàq mais maa ngi sant yàlla waaye billaahi wallaahi wa taalaahi dam man maa ngi xiine mii na ku mën a dem Amérique demal du baax na yaakaar ji seen yaakaar ji tas kanam la jëm bu ñu demee ba Amadou Ba yor économie Sénégal ceeb bu weex sax amatul bëggaj léegi mais Amadou Ba lan lan mais mais lan la yorul yor na économie bi yëf yi nërmeelu entreprise yu bari man yu ma xamoon ma daan jëflante ak ñoom daano nan entreprise France entreprise français yi jëm ca kaw yow da ngay dem France xam nga ne yow sénégalais bi mënoo faa am dara xanaa day fekk français bi soxlawu mais ñun luñ baaxle France yi jël yóbbu luñ bon lay ñu jël ba pare dañuy ñëw suñ biir dëkk nag ñu doonaat seeni surga boole ci waaye nag xam nga liy problème tubaab dafa yeewu tubaab moom yoonam nekkut ci population bi day fexe ba ñun ki ñu fonk fal ko mu jël ko def ko mbindaan yeew ko di ko jariñoo su yoonam nekkut ci ñun population bi quoi mais dina fexe ba képp kun fi teg mu jël la yeew la ci buum ku yor économie ak finance ceeb bu weex mënatut am sool nga yor premier ministre ndaw ñii dee ñii di dem ci gaal gi bu ñu la joxee réew mi baa duñ ñun ñun ñun ñun ñi fi des a kus néew di ñam dara baa far faatu ñun focus leen ci déglu Ousmane Sonko bu tayee ñu ne yow nan ngay duggee ci oto na da ngay dem dakaar dem ba buntu Pikine nga gedd oto bi ne wàcc naa yaa xam boo wàccut nooy def egg nga Dakar di Amadou Ba noonu la def nguur gu des 3 mois ak ay Mame Boye Diao génn yi mbel-mbel yi barki sëñ Touba damay toog mais damay jooy damay toog yor sama xaalis sama dara awma benn problème mais damay jooy lu tax may jooy waaye façon nit ñii ñu jiite ak ñun niveau bi ñu amee ak yeewute gi ñu amee ak silwise gi ñu amee xam nga chaque jour dañuy wax ne réew mi bàmbaa moom nañ bàyyi bàmba bi ñuy tooñ bàmba moomut réew mi ndax fa ñuy dogale réew mi sax waaye bàmba faru fa ne sëñ Touba lim réussir mooy fexe ba ñu sañ a jaamu yàlla te tubaab bi du yeew kenn ku nekk di dund diineem mais ba tey réew mi tubaab bee ko moom xuraan barankoo degolay maamam fii la ñëw def loo defut ñu jàpp ko ca bis ba degol ne nii ñu bakk yow sëñ Tuubaa di sa maam set mois ñu nga bërëng yu set wicc yu wéqu ba sedd ñu ngi nii di la doog a bàyyi kenn baalu la da tëdd sa pen kon yow maanaam taxawaayu sañ-sañ bi fi doomu sëtub degol am amoo ko fi te sëñ Tuubaa sa maam a xeex lépp kon nañ defaraat toogaay yi bàyyi wax ji